rahmatullahi taala wa barakaatu nee na bokki jullit yi fi teew yëpp ak bokki taalibe yépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax ci biis bii nga xam ne bis bu màgg la ndax liggéey bii ñuy liggéey moo ko waral nee na li nuyoo bi nag da koy teg ci loxol Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nee na diggante Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Cheikh Mouhamadou Bachir àdduna bépp xam nañ ko ndax daf koo jiitu diggante sëriñ Abdul Xaadir la ak Cheikh Mouhamadou Fadal waaye it nag ku xam sëriñ Abdul Xaadir xam digganteem ak Cheikh Mouhamadou Lamine seen diggante diggante la boo xam ne suñ ci tàmbali woon wax tey jii jëmee ko guddi duñ ko jeexal waaye moom sëñ Moustapha mii nag nee na yàlla dogal na diggante Serigne Bassirou mii ak mu Mouhamadou Lamine Bara ci Serigne Moustapha mii la tàmbalee kon yaakaar naa ne lépp lu ma liggéey ci diggante bi rek seere la ci moom te lépp nag Serigne Moustapha rafetal ko. ci lekk nekkuk Cheikh Mouhamad Lamine Bara ak ginnaawam nee na mënee su ko xàmmee nee sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax li la sëriñ Abdou Lahad seeree léegi rek ci ñor gi la yoon wi ñor ak yitteel gi la taalibe yitteel nee na mi ngi lay sant bu baax nee na mi ngi nuyu nag imam Moussa Niang bàyyi ko ca Tiwaawan di jiite jàkkay sëriñ Babacar Sy di sa wëllëre yow sëñ Seex waaye nag muy ñaari wëllëre ndax moom miit wëllëreem la ndax nee na kat sëriñam sëriñ Abdul Aziz Al Amin màggaluk sëriñ Abdul Xaadir gu ma sa jot taraanga ya ko sëriñ Abdul Aziz daan yónnee moom imam Moussa mii moo ko daan indi te boo koy indi àndaale ko ak cofeel gu mag ak taxawaay bu mag kon nee na ñi ngi sant ñi fi nekk ñëpp nee na di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbakke di nuyu nag sëñ Mor Talla mii nga xam ne mooy xalifab sëñ lay Fall Ndar ak rakkam yi mu àndal yëpp di nuyu sëriñ Cheikh Bintu moom mi nga xam ne moo waral daje bi di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di ci jëf ju jii nga xam ne lu mu rëy rëy du kiimaan ci kër Cheikh Ibra ndax ko bokk ci Cheikh Ibra nii dong ngay mel ndax seen maam moo leen ko fàgguloon waaye nag teewut mi ngi lay sant cant goo xam ne yàlla képp lañ koy seereel ak Serigne Touba waaye nag nañu xam ne lii ngay jëf te di ko jëfal Serigne Touba mi ngi koy jëfal ndax nee na wóor na ko ne sëñ Touba képp moo tax nga di ko def te Cheikh Mouhamadul Mountakha seereel na la ko wax na ko foo nekkut wax ko it foo nekk Serigne Cheikh Jëmbu Fall mii seen kilifa nekkal fi maam Cheikh Ibra moom it jox na la ci ndigal kon ñi ngi lay sant ci loolu lépp di la gërëm di la ñaanal ci barkeb sëñ Touba nag yal nay sag defaru àdduna ak àllaaxira ba ko sëñ bi ñaanee rek lañ ci daal di amoon rafet njort di ñaan ci barkeb Serigne Touba ndax sa wayjur wa Serigne Sidi Mokhtar daf ko faa yónni woon muy yëkkati ak liggéey di ko ko jox ba mu ko ko joxee diir bu gàtt mu bàyyi koo fi laata mu koy tàmbali. yàlla defi diir bu gàtt ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi ko fi waaye njaboot gi yëpp nag àndandoo def wenn say def ci yitte def ci jom ba liggéey ba àgg moo tax waxoon naa leen na leen kuy liggéeyal Serigne Touba ba dem fekk la ca nee na loola képp doy na la seere loolee nag seere Serigne Modou Ablaye Fall Ndar la ak liggéey ya ko jikkoon yëpp kon ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan sunu borom yal na leen dolli kàttan sàmm leen ba li ngeen bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal ko seen maam ngeen defe ko ni ngeen ko bëggee te benn gàllankoor bañ ci am nee na wax ji nag du gudd ndax yéen seenub jataay moom jëf rek la waaye du jataay bu wax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah